waaw Mamadou boo xoolee instant bii bu ñu commencé boobu ba léegi euh, le président et son gouvernement ils se sont inscrits dans une logique de rupture. Mm-hmm. parce que loolu la ñu dig Sénégalais yi loolu moo nekkoon de promesses yi nga xam te ne jox nañ ko Sénégalais yi te tey bu ñu xoolee nu ñuy doxalee ñun suñu xel dal na ñun mii nga xamante ne on a laissé pas mal de propositions pour aller soutenir le président Bassirou jomay parce que dañoo gëm ne euh, lépp li nga xam ne bind nañ ko ci programme am bu foloo mm-hmm. dina ko jëfee. tey tey on n'a pas tort jusqu'ici en tout cas ñu ngi sant yàlla. par rapport à ces décisions je pense que c'est une décision un acte qui est très fort qui est à saluer parce qu'il faut rappeler Sénégal fu mu jógee ba egsi fii tey les années dernières amul lu ñu gisul ci wàllum détournement de deniers publics des rapports yi nga xamante ne jébbal nañ ko procureur sans suite incriminé sans suite mu doon benn impunité bi nga xam ni sénégalais yépp ñaawloo nañ ko mais tey quand le président Bassirou Diomaye vient arrive au pouvoir et qu'il euh, donne des instructions au Premier ministre pour que les rapports de l'OFNAC, de la Cour des comptes, de l'IGE soient publiés, rendus publics. Mm -hmm. Pour moi, c'est un, un acte, qui est saluer. Mais est que priorité la woon du moment que dafay soog a falu juste mm-hmm. dafa mel ni benn déclaration de guerre ci ñi nga xam ne ñoo fi ñoo fi nekkoon par exemple. bon je ne pense pas que ce soit une déclaration de guerre parce que boo xoolee avant mi ñëw ci euh, décision boobu am na yeneen décision yi xam te jot nga fi jël. Mm-hmm. ah donc euh, pour wane ni ce n'est pas sa priorité mais aussi c'est une demande sociale li nga xam ne sénégalais yi dañu bëgg xam la vérité. Ouais, on a entamé pas, pas mal de scandales. ça c'est vrai jusqu'à ce jour kenn xamul. Mhm. lu ci lu lu xew ci dossier yooyu noonu. Mhm. mais wane na ni am na yeneen priorité yu wuteeg les rapports de l'OFNAC. mais par rapport au rapport toujours en espérant que duñu dem ba ci biir politique rax parce que l'a vu dans le passé je ne pense pas que loolu dina parce que le président Diomaye et le, le la coalition Diomaye a toujours prôné pour l'indépendance de la justice mm -hmm. la reddition de comptes oui tout le monde est d'accord mais que la justice soit indépendante et je pense que des mesures ont été déjà prises ci sens boobu noonu parce que quand le président euh, euh, accepte déjà de sortir du conseil supérieur de la magistrature avec le ministre de la justice, de la man c'est une manière de laisser à la justice libre de faire son travail. Justement, cette justice, il oui. y, a dire. sax euh, mm-hmm. sax même démb ci conseil bi bokk na ci li génn ci communiqué bi euh, réforme ak modernisation de la justice loolu euh, naka lañ ci war a parce que sooxee na ci lu bëree bëri déjà un acte posé mooy que dafay génn conseil supérieur de la magistrature boobu c'est un deuxième bi il faut que la carrière des des juges ne soit plus gérée par le président. Mm-hmm, mm-hmm. boobu président bi moom moo gérer seen carrière ñoom ñëpp dañuy dépendre ci président bi donc du coup certains seront tentés de faire li lépp li nga xam ne mooy neex président mm. pour espérer s'attirer ses grâces ouais. donc pour man loolu c'est un acte très fort il est important que la justice soit indépendante te loolu boo gisee programme Diomaye am na vraiment étude bu bu sérieux bi nga xam ne def nañ ko ci mm-hmm. bëgg nañu que la justice ait son indépendance euh, de façon à 100 pour cent mu def son travail librement ba nga xam te ne président bi du leen influencer ministre de la justice du leen influencer. Uh -huh. donc dans ce cas là il y a beaucoup de réformes yi nga xam ne président euh, programme euh, Bassirou Diomaye euh, Diomaye président prévoir na ko. pour indi ko ah,